barke serigne touba mbacke nobal nga as gor nga nit ku bax nga alaaji demba ka waron na xamni bu taxawale lu nu mel bir ndakaaru di nga ñew alaaji demba ka waroon naa xam ne bu taxawale lu nu mel bir di nga ñew ya man se nit ya gore li jamono di xat xat xat xat xat bay nga lepp tew ndax ngor ak kolere ak teranga yalla na la yàlla sàmm yal na la yàlla fay billahi ndeysaan ya ko mom ya ko mom ya ko mom très bien très bien président nag tey sa xol tooy na. ah. ñëw ba sama kër jaal si ma. yaa ko moom. yaa ko moom Seck Maria Yacine. oh groupe EDK am ngeen ndam. groupe EDK am ngeen ndam. président Waly Ballago Seck le roi de musique africaine. ñëw na ci inauguration EDK boutique bu bees bi. ñëw jël pañe ndugg ba mu fees pour njaboot gi. président yaa nis góor yaa nit ku baax. yàlla na la yàlla sàmm. yàlla na yàlla sàmm. jërëjëf Maria Yacine jërëjëfati. jërëjëfati jërëjëfati. ngeen def yéen ci te président jóge na ci xar yi président jóge ci xar yi de mi ci bañ a ndogu yi. laa ilaha illallah man de yaa ma yéem. son excellence président Wally Ballago Seck yaa ma yéem. loolu roi de la musique africaine yaa ma yéem. barke Serigne Touba Mbacke waaw li moo tax muy fees li ñuy jaay dafa yomb de. li ñuy jaay dafa yomb trop. moo tax fi day fees dell. non en duñ nit. sër yooyu lépp fees na na fees dell alalu baayam la na fees dell baayam ko moom na fees dell waaw jërëjëf jërëjëf président sama xol sedd na sant naa sagu naa sama xol sedd na jërëjëf man nga sagal président Wally Ballago Seck man nga sagal jërëjëfati jërëjëfati jëfati jëfati jëfati président génne na carte or ya carte bleue ya carte noire ay dab sa waa ji bari xaalis milliardaire la li du jeex milliardaire la li du jeex maa xam maa xam barke sëñ Tuubaa bàkk li du jeex laa ilaaha illallaah ay carte yu ñuul laa gis ay carte yu ñuul ak ay carte yu orange ak ay carte yu weex laa ilaaha illallaah kenn ka nga bàyyi ma damay filmer sama xol dafa sedd bàyyi ma damay filmer

mo nangul nak moy borom boromub jom gi dem Ka sama baay bi bilaay senegal bu ñu amoon juróom-ñaar yi melni yow senegal bu ñu amoon juróom-ñaari Demba Ka rew mi jugge fi yëpp kon senegal emergence ken do ko wax rew mi dem na yonam bu yag ya bari jom sama baay bi waye barki Serigne Touba Mbacke xamone nga ne bo xote lu mel ah sa bu goor bi dina la wuy president dem Demba Ka xamoon nga ne so wote lu mel sa bu goor bi dina la wuy barki Serigne Bamba Apa nak pergi waaw lu xew. lii dafa bëri de te ak lii moo ko dafa néew. looy wax nii. non loolu mun na nekk. ay la la fayeeku. non lii mun na c'est possible. ñaata nga ko fayeeku yow. 121 sérieux bi ba mu fees. barki Mouhamed man def naa 2 millions. ah bon na bi président dafa 2 millions ndax sérieux bi dañ duy et quelques mille la. ah nen day nen day ñëwal président nen day dellu nen day dellu lu mu jënd doyul président nee na day dellu lu mu jënd doyul dolli na tànnarma dolli na tànnarma dolli na meew dolli na suukar eh waaye groupe a e groupe EDK yéen a ko yor groupe EDK yéen a ko yor vous êtes les meilleurs vous êtes le meilleurs groupe EDK vous êtes les meilleurs yéen a fi de yéen la fi yàlla teg te fi yàlla teg ak ki fi nit ñi teg bokkul yéen a mën yéen a ëpp doole groupe EDK président xool la neex nga jël Fi sa barab la sa baye ko mom fi sa barab la sa baye ju bax ji allah gi demba ka moo ko moom xoolal la neex nga jël ah yàpp xar bi president ngeen nga jël lepp la ilaha illallah li ne musuma ko dégg president wali balla ko sek neena ko wek lepp nee ko nee na ko yàpp xar bi wekk lépp président seeram tàng na de la ilaha illallah président seeram tàng na ca na ko nekk sa waa ji du nit barke Serigne Bamba Mbacke sa waa ji na xar yëpp su supermarché de Carlo Prince bu bees bi nekk Almadina dugg wekk lépp chaque jour xar la ñuy reere ah kër ga de pale ba chaque jour xar la ah chaque jour xar la la ilaha illallah l'histoire tiendra hmm. président Waly Balago Seck yaram bi daa tàng jër ñëw na ci supermarché low price bi nga xam ne alaaj dina bakka baayam ju baax jee ko samp ñëw wekk xar yëpp fukki xar la fekk ci sérieux bi wekk na lépp laa ilaaha illallaah lépp nga wekk yaa bari doole yaa bari doole sama waa yaa bari doole barke Sëriñ Bàmba kenn ma sa gis lii mais ah kii Omar wax bu bëri nag suukar ci jàpp leen indi suukar bu toy ak tàndarma bu doy danoo jëm ci weeru koor président nee lépp lu fi des ci suukar ak tàndarma ak meew dina ko jënd waaw président nee na lu fi des ci suukar ak meew ak tàndarma dina ko jënd indi leen meew mu doy Moustapha Moustapha indi leen meew mu doy président jënd ko lu mu lu ñàkk faw day am son excellence